man a ah, tottam kalis tan ga gaari ko boni eh, eh. ko yow ak fi réew mi toll yoroo compte orange mo ne ala demal nga tijji ko léegi boo ma fay la sa xaalis demal ah, mi uddis compte orange mo de sotta kam kalis kaas fi nga taxaw léegi sa xaalis nga dem ma dem way wat man coow <laughs> am na ñuy nelaw ba léegi di compte orange mo ponkal mi mënu ko am ah doxu leen de da ngeen di raam eh deuxième problème maa ngi ko war a transféré xaalis te li ma yor matul cash à domicile 33 824 39 39 ak neex a jàpp yoy jërul sax bind asalaamaaleykum ah sëñ bi da nga def ça va waaw man dafa am sama benn waay boo xam ne dama ko yoral xaalis war ko euh, war ko ko mais li ma yor dafa matul te am lu ne sans poche jërëjëf jërëjëf ndeysaan jërëjëf bala ngay yëggale sax ñu dalal sa xel jërëjëf ci ay casse à domicile problème bu ne am na ci solution jërëjëf kontaan naa ci rapidité bi efficacité bi la dëgg askan wi la merci beaucoup jërëjëf laay li ma gën a neex ci orange nag mooy man danga koy màcc di ree ak wuute këleen mu sa di pamplemousse <laughs> gaaw ci retrait gaaw ci transfert ah kenn du orange ma ne laay noppal nga askan wi Orange Money réglé na situation yëpp. jël ko ci rek dugalal sa numéro. da ngay daal di deux mille sax. xoolal. ñaata. cinquante trois mille. maa la may deux mille. am na taras saa yoo ma woowee message baa ngi fi. waaw kaay kaay kaay kaay kaay kaay sa arme blanche bi yóbbaale tere na leen arme blanche ba taay ñeenti dooree ko bàyyi. loolu de cosaanu pël la mënuñu ko bàyyi. jaaji ma ne sëñ kaay kafe kii. ay boy ci. eh kaay leen. Bouda. kaay leen. lu muy teew de. kaay leen kaay wuyu rek. Sénégal te xam ne méditation man mooy sama problème. yéen daal dajjanti di mbëkk mi yeeg di këndëng këndëng moo leen gën a tënk xam nga la moo ak professeur na waaw baax na waaw baax na bëgg a xamal man maa ngi a sama xaalis a ngi dem cent cinquante mille dem na ci zéro ba léegi werse goo leen ma dara pour lan loolu dafaa da ngeen mën a jaay mënu leen ngeen jël seeni i bagage dem man du ngeen ma kale kale yéer maa ne tax ma andi leen fii foofu laa yem ak yéen bu ma nee nii rek ngeen ne ma la ma ne ay jaan bu résilier contrat bi bu résilier contrat bi mu ñoon ñu ngi jéggul lii erreur de de ethnie la parce que kii làq bi mu làq bu fekkoon dégg na ko lii du ci am kon jéggalu rek la def waaw ah, bii mooy sama dernière wax ak yéen jéggalu rek foofu laa yem ak yéen su ma leen woowaatee moom mooy jël ngeen seen bagage dem ngeen man njool xaw ma loo bokk si ngom su may wax ngay taabee ko rek di dof dof lu te yaa ma gën a xam li may wax yéen sa bopp su ma la dàqee dootoo tey déedéet si jooy lii bul si jooy lii bul si jooy muñal rek muñal rek ndax dafa demul États-Unis waaye xam nga ne yow boo demoon États-Unis dangay nga fay doon ndax xam nga ku génn ñun xamoo loolu rek la waaye muñal rek. waaw ah, lan ngeen di jooyoo nii tamit. yaay ma ma yaay ma ma nampal. réflexe boobu mooy daw. ah loolu la. baal na ko baal leen jooy xar yi di eh, jooy. boobu leen jooy nga defal. waaw mais dëgg baa leen ah di jooyandoo loolu baaxul sax. suba ka jëm suba ka yàlla la. daal baal ma ne yàlla naa fekkee tamit. jooy nii.